يا جرى عمي ما قصر عمي ما قصر مين هي واحدة خاوم ماذا ñun ñun ñun Sénégal moo ñu ñor dañuy jéem a lijjanti mais naqar gi ñu gi président teg ñu ko lañ bëgg mu jeex ñun loolu la xeex mais pas ay Sonko ay Macky li ñu métti la ñuy xeex te loolu kenn mënuñu cee jëlee benn mun dooméraam ñu jee jëlee ñun dañuy xeex pour Sénégal mën a changer ñi nga xamante ne dañoo sonn lan nga jappé dossier mamay mamay mamay ñaan li jënti wuñ ci nga bu dëgg ndayam bobu nga mamay ñaan ñun li jënti wuñ nday mamay ñaan bu ma wax ay wo man wax ma li nga xamantene mo ñu ñor muy sénégal mais pas doméram yi nga xamantene tekki wuñ dara motax ñu nan la ñu rafetal kat ñu man wax lepp ci tek ak tey ñu waxtaan mais ñom rafetaluñ ko tax mënu ñu jël ko ben simple nit bo ba tay nga téy ko ci lo xamantene ay ay doyoram rek ngeen seq ko ay caga ay aji Sarr yu tekkiwul saram ndayam yi di ay caga. yow nga jàpp ne kon dossier bi. bi dara newu ci dara newu ci ñoo ko créé. mais non dossier bi dafa am li nga xam ne Sonko dafa génn mi ngi rapport wax mooy dëgg. li mu wax mooy dëgg da na xam. da leen xam ndax daa yàgg liggéeyee ak ñoom ñu xam ne ñii suñu xaalis bi la ñuy jël di ko pasal pasalee. gis na nit ki boo demee ba xam kii li mu bëgg li ci li ci nekk rek xamu mooy lan mooy faagaagal ko te ñun loolu la ñuy bañ. kon na nga jàpp ni que dañ dañ li ñuy def ay pexe la pour faagaagal ko. ay kay ay pexe la ndax ay dossier yu tekkiwul saram ndayam yi ay jigéen ah di ñu jéem a di jéem a réere sunu xel yi gis nga xeex bi billahi bañu ñu ci dara ñun joxe nañ sunu bakkan ñun jeunes yi luñ ci góobee gar ko ñun lijjantiwuñ benn doomeraam benn caga ay ñoo Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp ay caga lañ ay doom biiral lañ ne di ñu fonto ñu ngi lay jaajëfal